opération bi li ko waral rek mooy que ni normalement bu lépp doxee ci yoon bu lépp doxee ci yoon lotissement balaa koy kenn di appliqué day xaar ba am autorisation de lotir maanaam autorisation de lotir boo xam ne dossiers yi textes yi définir nañ lan ak lan moo ci war a nekk boo ko amee nga dem euh, jox ko ñu saytu ko ci service yi nga xam ne ñoo ko war a saytu ba bu demee ba toll fenn fi ministre de l'urbanisme signé autorisation de lotir bi lool nag comme amul dañu obligé comme descos mom wala moy di saytu toogin ci souf toogin wu jaar yoon te respecté euh, loi euh, dañuy obligé rek ñew dindi borni yi parce que lool la yon santané li ci dess nak xeyna dina am du xeyna sax mais lu leer la dina ay enquête yo xamné ne dina suivre li nga xamné ne gis nañ ko té mu nek lo xamné ne normalement autorité territoriale waru ko def parce que ni li eh, koy ni koy nasaraan di waxee rek eh, yoon moom ñëpp ko war a xam donc ñoom ñi nga xam ne dañoo nekk ci eh, gox yi war a dimbale administration centrale pour que lu jaarul yoon nu signalé ko malheureusement ñoom da ci am ñoo xam ne dañuy profiter ci seen position di def ay lotissement yoo xam ne coow rek lay jur ëllëg si biir ndax lotissement boo xam ne amul autorisation de lotir waxuma la ak jaay mais publicité sax boo ko ci defee yoon mën na la topp donc nga def lotissement boo xam ne amul autorisation def bornage yi di ci jox ay nit léeg-léeg benn parcelle ñu jox ko ñaari nit ñetti nit loolu ay coow rek lay jur ëllëg boolu ci encore lotissement du kër kese day am parcelle yi nga xam ne mooy nekk kër mais da am ne yeneen parcelles yoo xam ne mooy li ñuy wax équipement yi fu gone yi war a tàngalte seen yaram fu ñu war a fajoo fu ñu war a jàng école yooyu yëpp te ñoom bu ñuy def lotissement irrégulier yooyu yëpp duñ ci duñ duñu ko sóoraale te euh, état bi nag dafa nekk pour protéger citoyens yëpp mënuñu seetaan ñu installer ay citoyens ci lotissement yoo xam ne euh, yoon yi baaxuñu suuf si terrassé wuñu ko ba nga xam ne taw sax bu baree mu am wale ci biir euh, nit ñi état bi obligé encore di ñëw di leen dimbale parce que il foog ñu assister leen donc mënuñu seetaan ñuy def lotissement yoo xam ne maasale wuñu suuf si yoon yi dagguñu ko dagg bi wañu ko bi ñu ko war a dagg te aussi yoon boo koy def da nga ko war a sos ci yoon yi nga xam ne plan bu mag bi euh, gérer yoon bi yëpp loolu la wax donc mënoo jóg def benn lotissement isolé ko rek jaarul ci commission régionale jaarul ci commission départementale amul signature ministère de l'urbanisme nga appliqué ko ba pare di si jox ay nit loolu yoon daf koo dàq te ku ko def yoon daf lay topp aussi dal ci sa kaw. waaw euh, nga lii yëpp. Euh, xam nga urbanisme moom bu yoon di yoon rek terrain bu libre lay nekk nga am def dossier ñu xool ko ñi ci war a xool ñëpp xool ko mu am euh, étude d'impact environnemental nga xam ne day après mu am euh, plan de gestion environnementale et sociale ba nga xam ne jéye boo xam ne nar na ñëw du ci am mooy maanaam ci wàllu prévention maanaam di xoddeeku balaa ngay lakkale cest diir dire mooy waroo xaar nit ñi toog toogin boo xam ne jekkul ba pare nga ñëw di jubbanti loolu dafay coûter état bi ay fare yoo xam ne mënoon na dugg ci leneen te autorités yi nga xam ne ñoo nekk ci maire yi malheureusement loolu war xam nañ ko en principe war nañ ci tenir conséquence di moytu yi mel nii di ñu arrivé. waaw texte yi moom texte yi moom ñoom ñoo koy voté ñi ci ëpp ay député lañ te texte yi waa assemblée nationale ñoo koy voté donc vraiment réeré wuñ ko mbir. léeg-léeg def li la neex wala nëbbuti di def yaakaar ne duñ la gis da ciy am te aussi Descos day jaar toujours ci télé yi ak ci rajo yi euh, jaarale ko ci technicien yi mu am mais jaarale ko aussi ci colonel Sabour yi nga xam ne mooy directeur bi vraiment di communiquer pour nit ñi xam euh, Descos bërëm yi ubbeeku na pour que kuy bëgg jënd wala kuy bëgg a def lotissement boo ñëwee doo fay dara dañ lay informer wax la fii baax na wala fii baaxul nga xam ndax da ngay jënd wala dangay ngay def lotissement mais balaa nga koy def fekk euh, kilifa yi nga xam ne ñoo war a signé kayit bi ñu signé la ko nga xam ne bu boobaa yow sax booy liggéey ñu des ko dina bokk ci nga xam ne dañ lay xaar nga liggéey ak sa teeyu bakkan mais bu dee amoon autorisation moom yoon day dal sa kaw te loolu moom mooy wàllu descos waa lii nag xayma bi moom war na tollu ci ñetti téeméer ak juróom fukk jëm ñeenti téeméer ci ay hectares donc xam ngeen ne bari na te loolu vraiment lu lu ñu mënoon euh, éviter le malheureusement nak comme amna dañuy obligé dindiko légui nak li ci top moy que euh yoon mom dafa am loi bi mi ngi fi ak texte yi nga xamné ñoy euh orienté toogin ci euh ki nga xamné ne impliqué impliqué nga ci li nga xamné moy géomètre ba moy entrepreneur bu doon def terrassement wala ñi nga xamné ne ñoo concevoir plan bi sax té xamné amul autorisation ñoo ñëpp comme ni ko yoon programme euh, enquêtes yi bu bu antoo ku yoon war a dal ci sa kaw rek yoon dina dal ci sa kaw comme ni mu ko programmé. fii nag ci commune nu Chérif bokk ci dëkk bu ñuy euh, xaw a tafu ci dëkk bu ñuy wax Thiawène Bambara waaw. heureusement xam nga ni ñu ko xaymaa mooy à peu près fukki junni ak juróom ci ay parcelles mais xam nga lotissement irrégulier moom ñoom bu ñu koy defar parcelle kese la ñuy kii moo tax sax mu am densité boobu. mais normalement euh, euh, superficie les warul won sax am fukki junni ak témèr ci ay parcelles ndax mom dafa nek parcelle de mais aussi da fay l'a comme ni ko waxee ay yoon ak yi nga dañ koy programmer ci muy fu ñuy fajo fu ñuy euh, fu yaram ak yoy yépp nga dañ koy mais yoyu en général ñiy def lotissement irrégulier duñ ko ci programmer té loolu nak ci bokk ci habitation la bokk loolu motax ñuy bëgg nit ki balaa muy def lotissement toujours rek na dem ci euh kilifa yi nga xamné ne loolu seen wall la ñu jox la ay conseils orienté la ba nga xam ne lotissement bi bu génnee day muccu ay péage bi wóoruma mais euh, euh zone lotissement minier bi moom xaw na ko laal mais li ci am solo rek du ndax laal na autoroute wala ndax laal na benn TF particulier mais li am solo mooy gis-gis bi rek mooy c'est pas autorisé maanaam c'est irrégulier donc li nga xam ne c'est irrégulier moom dañ koy xala dindi léegi nag je ne sais pas bu ñu defaree seen dossier dem ba am autorisation de l'autorité dañuy am droit defaat seen seen application borne mais pour le moment borne yi moom nga xam c'est pas autorisé mais dañ koy dindi comme ni ñu ko yoon sante euh, site bi kon maa ngi fi commencé investir 2018 euh, 2019 jot naa fi def nag euh, lu yées tuuti rek 100 millions donc ginnaaw ba ma gisee ki nga xam ne si moom mooy kilifa gi laaj ko ndax situa situation site bi nekk na en règle mu pro effectivement donc mu wax ma ni lépp nekk na en règle ba ma jot ci am quelques papiers bu am nikaat ñu wan ma fi ñu may jaay léegi au moment bi ñu may jaay j'étais même hors du Sénégal ñu jaay ma en dehors de l'assiette et il s'est trouvé que foofu c'est sur le 8M donc bi ma toppee si kayit yi daw ba sonn après j'ai pu comprendre que ni euh, fi ñu ma jaay c'était pas en règle de toute façon rien n'est encore en règle ici mais am na site boo xam ne jàpp nañ ni bu yàggul dara dana nekk en règle mooy lotissement lotissement bi Thiawoune Bambara ça fait environ 245 hectares boo xam ne si am na avis yu bari donc loolu lépp dinañ si dikkaat nag parce que comme que autorités yi nga xam ne si ñoo def loolu noonu xëy na ñoo ko tey xëy na teyuñu ko xaw ma si dara nangu nañ ni juum nañu té dinañ ma recaser fenen donc man damay xaar ba fi ma euh, fas recaser mi ngi nek si route de Morolan bi amna autorisation de lotir site bu baax la bu nek en règle la comme ça bu ko défé man tamit ma àndandoo fa ak sama ay partenaire ñu ñu dem fofu wa bobu bokk na ci voilà wa liñ ma liñ ma liñ ma jaay nak warna mat ay 450 parcelles pour ne pas seulement parler d'hectares mais 450 parcelles donc bi ñuy dindi tamit gis naa ni bi ñu leen ko waxee dem nañ dindi sama ay bornu affaire yooyu noonu j' étais tout à fait d' accord parce que si bu nekkul en règle je suis allée porter plainte auprès de la DSCOS je suis dama dama d' accord ci li DSCOS DSCOS si def parce que dindi borne moo gën a yomb dindi ay kër donc lu nekkul en règle teel ko dindi nit ñi bañ cee lor moo gën ñu bàyyi baskan bi yëpp lor suñu soog koo def li nga xamante ni mooy lëmbe jamono rek ñu am maire boo xamante ni dafa yore suufu commune de Cheriflo Lo yore ko ci ni ko neexee di ko faje ay soxlaam ñu jël suufu Cheriflo Lo di ko dilapider di ko tasaare di ko def nu leen neex te population bi gisuñu seen bopp. parce que lotissement yëpp yi nga xam te daf koy def ci commune de Cheriflo amu ci benn lotissement boo xamante ni teg nañ ko ci yoon ñun ñu yàgg ko décrier dem nañ ba ci moom wax ko ko jàkkaarloo mu wax ko ko dem nañ ba ci l'autorité locale dem nañ ba ci le sous-préfet de Pambal ñu waxtaan ci ak moom dem nañ ci képp koo xamante ni autorité la ci commune de Chérif Lo ñu wax ko ni ko la gestion de la commune de Chérif Lo foncier bi dara leeru ci la gestion administrative tamit dara leeru ci mais jusqu'à présent xeyna tay résultat mi ngi soog am parce que effectivement Descos ñewna fi dëndi fi ay borne lolu rek lañ doon xaar tay yag nañu bind fu nek fep fu ñu yaakaar ni buñ ñu fa bindee dinañu ñew jappalé ci lolu bind nañ fa dem nañ fa wax nañ fa pour que ñu ñëwaat ci auditu commune de Chérif foncier commune de Chérif état ñëw audité ko ñu ñëw lépp li nga xamante ni dafay nekk ci lu jubul ñu jubbanti c'est tout ce qu'on demande ñun demandé les gens lu dul suufu Chérif Lo bi nga xamante ni moom ci la ñuy bay ci la ñuy dëkk ñu géreel ñu ko nu mu gën a yi selle ñu géreel ñu ci intérêt population Chérif Lo politique ci àdduna lépp politique la même ñu ñuy yore suñu kër yi sax politique la mouvement ATTC encore une fois Moi, waxaat ni ay parti politique yu wote ñoo fa toutes les partis politiques de l'opposition opposition ñoo fa daje ak ay nit ñoo xamanteni defuñu politique société civile lañ bok ak ñoo xamanteni ni wuñ ci lenn lo xam te dafa laal politique ñi ngi ci biir mais dañu ñëw and ak ñun pour xex intérêt communautaire de Chérif taxaw pour bu ëllëgé bu ñu démé ci élection locale ATTC tan ben candidat jappalé ko fal ko pour ñu jubbante li nga xamanteni mo yaako ci communauté de Chérif Lo dëkk yi gën na yaatu lii li am caawun bambara amna na kunta am na Chérif Lo am na dem na Kër Yoro Sadio

Le problème bi éclaté la nuit passée dan ma subitement pour ma mère, mairie à la mairie de on m'a donné 1,8 million de francs 1 million francs soit 180 francs de billets de 10 000 francs c'est parce que je sais que li double, c'est parce que je ni c'est que ma lan moo xew parce que déjà des des descos wàcc nañ ci terrain bi dindi nañ borne yi sànni nañ ko fan la caawun séréer dindi nañ ko à caawun séréer dindi nañ ko à caawun bambara te foofu laa amee woon quatre yi lan ma fa jaan pour benn daara pour benn daara subitement bi ma leen accéléré ci leen ma woo ci guddi gi ma ñëw dem ñu delloo ma sama 4 millions sama 1 million 800 devant ci sama yenn xarit yoo xam ñoom laa àndaloon ku mel ni Assane Baal ak ñooñu nga xam ñoom laa àndoon ñu remettre ma sama xaalis man man ma gis sama parcelle ñu ma chaque parcelle ñu ngi ma ko jaay woon un quatre cent cinquante mille francs les quatre terrains un million huit cent mille. waaw xam naa ginnaaw ma santaate yàlla julli ci Yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah, yaakaar naa mbir mi xanaa gën a leeral mais mbir mi leer na parce que fii nga xam ne tey fi leen taxaw ah, ak taskati xibaar yi muy caawun bambara fii dëkku Cheikh Bou Kounta la. boo xamante ni ay téeméeri at la top la dëkk euh, xalifa général bu Ndiassane Cheikh Alaaji Maam bu Mamadou Kunta moom moo ma dajale waa dëkk bi yëpp ñu ay taalibe bambaram sedd village baa ngi nii taxaw sedd village caawun bambara ngi nii taxaw caawun séeréer mi ngi nii taxaw bi ñu ne wooyee woo taawam professeur Mohamed Kunta di au conseil ni doo bëgg ñu liggéey yël ko suuf si bu ko defee taalibeem yi mën a am fu ñu dëkk bi ñu toogee muy nag nañ waxtaane taalibe yi kenn bañ leen forcé seen suuf sii parce que Cheikh Bou Kounta moo leen fi tegoon borom Ndiassane ñu waxtaan ko ak kalifa général Ndiassane El Hadj Maam bu ak taawam bi ñu dikkee ñu dikk borom tool yëpp ñëw ñu signé protocole d'accord yi ak commune bi ben ko signé ba pare dem ci taawu xalifa mu Mouhamed kunta ñun ñëpp ñu signé protocole d'accord mu doon lu leer nañ ben ko si nag ci lañ dugg ci terrain bi ma woo promoteurs yi opérateurs yi def ak ñoom protocole d'accord yu leer nañ def ak population protocole d'accord yu leer nañ defal ko xalifa général kuntiyu ñu jox ñu ordre moo tax teere caawun mosu leen fee dégg coow mosu leen dégg borom bu simpi mosu leen a dégg benn borom tool bu taxaw ni maire bi dafa jël sama suuf mosu leen ko dégg du ko dégg ba ilaa yomal aset parce que lépp dañ koo teg ci aw yoon donc bi nga tegee nag ba pare ba defal sëriñ bi li mu bëggoon ci daan ni ñun kat état lañ fi nekkal kon nan régulariser terre bi lépp teg ci aw yoon tey terre bi am na avis classe am na awi domaine am na urbanisme am na travaux publics am na TP am na autoroute fi suuf di jaar fépp jaaral nañ ko fa donc mu nekk Thiawane euh, 1 Thiawane 2 Thiawane 3 bi. tey moo teewaayu waa Descos. document bi mi ngi nii hmm. leer na naa ji nañ leen ko présenté ngeen gis ko donc Descos nag moom li muy xaar mooy autorisation bi génn autorisation boobu nag. gouverneur leen yóbbu dossier bi ñu autorisé terrain bi mu jeex moo tax DSCOS moom ñëw bi mu dikkee dikk na am naa droit laaj autorisation ci droit am la nekk donc mais man kenn mësuma bind en tant que en tant que maire kenn mësuma compliqué en tant que maire ci terrain Thiawoune ni sous-préfet ni préfet ni gouverneur ni dinañ toj terrain Thiawoune dina fa dugal ay machine loolu mësuñu ko dégg tey daal laa toog ñu woo ma ni ma DSCOS nga ca terrain ba ah xalifa général bi nga xamante ni moo ma ko joxoon muy alaaji maam bu Mamadou Kunta bu Ndiassane ak doomam yëgal naa ko document bi nga xamante ni moo la wutum para autorisation bi dem document boobu jëlee naa ko urbanisme yi terrain yi lotissement administratif la maire moo ko porté kenn moomul lotissement bi maire moo ko seere kan mooy maire bi mooy monsieur le maire Ousmane Sarr bii di wax ak yéen tey kon promoteur yi fi nekk yëpp maa leen fi dugal maa leen defal protocole d' liggéey terrain bi incha allahu rabbi nag dégg approbation yi moom laa wax dama ni mooy yaa kadaas yaa demen urbanisme non délibération bi sous préfet bi moo ko approuvé représentant état terrain bi bi ñu paree bi jox na ko 46 conseils ñoo toog ñu délibéré terrain bi sous fee ngi toog ñu délibéré ko mu approuvé mu approuvé délibération bi ñu wut aw yëpp ma signé sous préfet représentant état approuvé acte yi booba terrain terrain mënatu ko gën a la ca des lépp nag xam nga lan la ay régularisation tey muy cadastre muy dewen muy urbanisme mënuñoo defar terrain sans maire maire mooy président bi maire mooy woo conseil municipal bi conseil municipal bi délibéré sous-préfet approuvé ñu soog a régulariser loolu rek la mais ku fi amoon terrain nga toog sa normal normale incha allahu rabbi da ngay jot sa terrain ba nga amoon dara du ci jóg dara du ci manqué damay bañ nit ñi dégg tëll yaakaar ni damm na terrain bu lu leer naññ la nekk lu wér la ñu nekk waaw fu ñu ne woo ñu génne suñu documents yi leer naññ

ok waaw du ma wax ñoo ay opposant lañu yoo xamante ne ay xel dajaloo nekk nañ ci beneen kuréel ni nag danay face maire bi nga xam dafa ànd ak ak état bi face d'accord naa d'accord naa bu ndee ba cëppaandaw ja maire bi nuy face moom ba fi ñëwee ba léegi lu mu wata dina ko gagné opposant yooyu ngay wax tax ñuy laaj nañ ñëw jàkkaarloo man mais pas forcé forcé bi ku ci aw doo jàll dafa leer waaw boo gisee ma taxaw moom par respect nit ki da nga jox ni respect jox ko bi moom ñoom ay autorité lañu kon bu ma ñëwee bala xamal ko ni ko terrain bi ngeen nekk document yi ñu doon toppatoo mi ngi nii autorisation rek moo ci des te autorisation incha allahu rabbi euh, dinañ ko autorisé wan wax ko waxtaan ak moom moom it lan ma wax ma ko mu doon ni ku tey doon ni ku dal donc bi mu déggee tey ku tey la ku dal la wax na ma ak moom la wax ak moom nag loola waxtaanu biirum néeg la nekkuma ci peres naa des ko wax na ma lii wax naa ko le wax na ma lii noonu man dugguma ci loolu des ko daal ñu ngi def seen liggéey ñun ñu ngi def suñuy waaw li may wax daal population bi ak képp ko xamante ne Thiawane Bambara man maa lay réserver sa terrain di nga ko jot en tant que maire. amul waaw dama lay wax ñaar autorisation bi moo génn gul moo des 15 millions ñu wax amul parce que DSCOS bi ñu ñëwee dama jëkk jël benn machine boo xamante ni moo doon moo doon toj mbir 4 di ko monter pour pour li nga wax euh, opposant la xawma lu mu doon. waaw di ko wane ci di ko wane ci réseaux sociaux yi di wan naa dajji nañ ko pour ne man nañ yàqal maire non mënuñu yàqal maire parce que yoon dara amu ci loolu amu ci loolu dara amu ci waaw donc chef de village ngi nii. waa bi population na parce que boo duggee ci biir dëkk bi da ngay defe ne kenn newu fi. mais commencé Thiès Dakar Ndar ba Kaolack xale yëpp foofu la ñu tasaroo dañuy wuti liggéey événement bu jotee ñu ñëw xale yi dañoo bare amuñu fu ñuy dëkk ñu dem ci sëriñ bi wax ko ñu ne ah sunu tool yaa ngi fi tey ñooy dimbale pour xale ñu mën a am fu ñuy dëkk yàlla da mu wooñu woo Mahamed doomam Mahamed Kunta ak sous-préfet ak préfet ñu toog waxtaan pour xale yi mën a am fu ñuy dëkk ñun ñoo moom suñu tool yi sunu maam yi ñoo jógee Mali ñëw Seex bu Kunta joxoñ mu ne dem leen toog fii Tiwaawan Bambara fekk ñay ak gaynde yi ak bukki yi ñoo fi nekk kenn kenn jege fii fii ma taxaw ni kenn mënul ñëw fii boo eggee fi bukki ak gaynde yi ñoo lay rey ñu nekk fi ba mu yàgg ñu dem ci moom ñu ne ko ah àll bi moom yu soxor ñoo fa nekk xam nga ne xam-xam bambara ak naar bu bu daje yàlla mañu sutura gaynde yi daw ñay yi daw bukki yi ñoo fi des ak till yi bon ñu nekk ci loolu eh, dëkk bi mu ngi sance 1902 1902 la ñu ko sance booba ak léegi kenn amul coow kenn amul xulo wax bu jubo lu ñu yëkkati ñu wax ko maire maire bu toog ñu dem eh, wax la ko nga di nga waaw nga jàpp nga dimbale ngir yàlla lu jaxase mosu fi am parce que ñun xamuñu loolu bambara xamul jaxase bi jaxase moo xamuñu ko lu jub rek sagar lañu sol mais yëfu jàmbur soxlawuñu ko sunu yëf sunu maam yi ñoo gor fii ba mu jeex tak boo béyee fii juróom-ñaari at sëriñ bi ne na ngeen toxu ngeen béy fale tamit juróom-ñaari at pour suuf si bañ a yàqu noonu la ñuy def ba mu yaatu voilà